fa néew ba ñu sulli woon taal ko ca leew na ña seen coow la suuloogul mbir ya fayegul yëral xët mu njëkkal observateur ginnaaw bi justice sante nañu def ci enquête ngir leeral xam ñan ñoo demoon ci armée de sulli néew ba taal ko yéene bi mi ngi ñuy baaxee secret yu mu amee ci enquête ba ñi ñu jàppagum ci mbir mi l'observateur mi ngi ñuy wax ñan ak ñan la ñi ko sooke journal bi nee nañu toll nañu ci juróom-ñaari nit ki woote woon joxe xibaar bi ba taxoon ñu xam fan la bi nekk yéene kaay mi ngi ñuy waxi ne kookee identifié nañu ko ki ñu ne bi moom it identifié nañu ko waaye dafa daw enquête bi wane ne ne nga ca Gambie fa benn waay la bu bokk ci benn famille religieuse bu mag tir nañu ñu yoon tegagum loxo ci mbir mi toll nañu ci fukki nit ak benn ñaari nit yi ñu jàpp na ñooy cerveau bi ñoom dañoo daw demoon ci armée li sulli ne ko ëpp na ko ñi ci jàppagum ñoo ngi toll ci fukki nit ak ñaar nit ñi yeewoo ci réew mi di population bu Sénégal Vox Populi nañu toll nañu léegi ci fukki million ak juróom-ñett yu teg fanweeri junni ak ñaar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett 173 habitants ñoo yeewoo ci Sénégal ANSD di agence nationale statistique démographique ñoo ko wax ginnaaw seen recensement gi ñu doon def Les Échos bu njëkk dañ doon wax naan fii ci réew mi jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi waaye cinquième recensement général population li mu feeñal mooy góor ñi ñoo ëpp léegi jigéen ñi mu di xibaar ak observe boobu Le Quotidien mi ngi koy dëggal ci xëtamu njëkk li mu bind mooy mal dominant teg na ci di ñu wax it ne département bu Mbàkke mooy fi ëpp ay nit yu fi yeewoo fii ci Sénégal li Quotidien gis ne révolution démographique moo am la woon woon ni na situation bi yu bari ñu xëyandool xëy na mooy situation bu Ousmane Sonko anki dina kay bind ne ak duggaatam ci liste électorale yi njaw mangi cee desandi xambin bara fer ba mu ngay wéy ba léegi ci diggante Ousmane Sonko ak administration bu Sénégal Sud bi le jour gis na gis ngir doon wax ci kalaame ya fa avocat yi Ousmane yi yóbbu woon Les Échos mi ngi nittali na audience ba demee woon keroog talaata ak fa mu mujj watalante amoon na ci diggante kenn ci juge yu CEDEAO ak ak avocat Ousmane Sonko bi di Juan Branco lise ko nañu juge bi dem na ba naan Juan Branco ku réew nga te xamadi xamee nañu ci journal lise ko ne juróom benn fan ci weeru novembre ca la ñuy xam dogalu cour de justice bu CEDEAO bi li ko waral mooy ci juge da cee am ab portugais boo xam ne déggul français yi ñu doon làkk ci audience ba moom juge boobee la wutal ku ko tekki liñ fa doon wax ñu wax ci tournée économique bi premier ministre Amadou Ba di def woon ca kees ba muy toll ca ay diggée yu rëy journal lañ fa nañuy waaye ko teeru bu rëy la ko yóbbuwoon ci mbuur moom premier ministre Amadou Ba yéenekaay bi nee nañu bokk na ci inauguré forage ba ñu def ca Fandaan ga ca Malikunda ginnaaw forage bu taaxum ak yu mbaadaan pël atum keroog talaata fanweeri fan ak benn ci weeru octobre Fandaan daloon ab forage mu di ab château d'eau bopp maire bu Malikunda bi xamle ne ne fanweeri million ak juróom yi ñu ko defaree dërëmu kenn demu ci lépp commune bi moo ko financé dool ne seen faj na mar wu yàgg wu askanu fandaan mi ngi ñuy waxit ab annonce bu fa premier ministre Amadou Ba def mu di ab programme hydraulique urbain ak rural bu yaatu ngir mbuur doomi Sénégal yi jël gaal gi dem Espagne ñu leen di roñ ju dugalaat ci avion di delloosiwaat ci réew mi yëf ya tàmbali na avion bu njëkk bi sursuwaa nañu ñëw na keroog ñaar fukki fan ñeent ci weeru octobre fanweeri migrant ñoo ca wàcce Walf Quotidien nañu moom kay caafa ngi bëgg a ndax bu weesoo avion boobee jot ñëw am na yeneen yu bari yu ca nar a topp rapatriement massif ca la jëm ñu dem ci libération xooli scandalu suuf bi mu 2022 terrain TF 8301 GR 2022 ñu gis fa benn promoteur bu ñëw di fa tabax ñu laaj ko mu wan leen ab acte de buy wane ne ndem si yàlla Serigne Gora Seye moo ko jaay terrain bi acte de ba 2021 ko signé maanaam fukki ak ñaar ginnaaw bi Serigne Gora Seye faatoo njaboot gu ne duñ ko dégg def plainte ba dossier ba ma nga parqué notaire yi di Aïssatou Niang ak Binta Rafet Diouf libération ne nañu ñoom it ñoo ngi leen di tudd ci scandale bi ndax dañoo def ab fausse procuration